la déggee bu baax fecc mi doxatul wala boog amatul xaalis comme avant tey artiste bi li koy dimbali li ci ëpp ginnaawam la maanaam ay fansam wala ay followers am wala ay nit ñu nga xam ne dañ ko bëgg rek te tax. non gis nga àdduna bu ñuy doxlewul ñii ngi doxal. Thione hmm. Seck def ne lu waaye def di torox ca am na ku ca tedd. Hmm. loolu nag mbiru yàlla la. Hmm. télé yi bokkuñu wërsëg. fecckat yi bokkuñu wërsëg. woykat yi bokkuñu wërsëg. ku ci ne ak ni nga war a amee ak ni nga ko war a amee. ñun bi ñuy fecc su fecc daa doxoon ci ñun bu bu hmm. baax a baax a baax a baax tey xale yi di ñëw am na ci ñoo xamante ni mi ngi dox ci ñoom bu baax a baax a baax hmm. mais am na ñoo xam ne doxul ci ñoom mais la plupart bu fekkee dëgg rek la yàlla bëgg aaru Sénégal dëgg la Wally Seck mi ngi ci business am mi ngi ko booleeg aaram. moom moo Dieng mi ngi fi mi ngi ci booleeg aaram. keneen ak keneen mi ngi fi mi ngi ko booleeg aaram mais ci biir ñooñu boo tegee rek di xam ne yàlla moom moo séddale wërsëg yi te ñoom ñëpp way la ñuy def. ñoom ñëpp way la ñuy def mhm. mais am na ñeneen ñu fi na ñoo xamante ne amuñu sax fuñu tëggee. Mhm. te kenn dàqu leen way. am na ñoo xamante ni mënuñu. Mhm. waaye li ñuy tëgg ci semaine bi ñu mën sax duñ ko tëgg. kon donc yàlla moo defee noonu àddunaam te àdduna bi il faut ñuy comprendre ni Pape am nga ay pexe am naa ay pexe am nga jom am naa jom mais cër yi ak daraja yi ak wërsëg yi loolu suñu borom moo koy séddaleel boppam ba tax na boo ko nanguwul rek li ñuy wax naan jalousie ay soxo rek ay def yu ñaaw da lay dikkal mm. te nag ku nekk ak heure bi la war a may am na koo xam ne 2010 lañ ko war a may am na koo xam ne 2012 am koo xam ne 2020 am koo xam ne yàlla moo defee noonu ay yërëm ay yëfam kon yow bul yàkkamti sa yëf ci laay ci laay ñëw sax Papa Ndiaye li muy wax ni un peu ci ci jalousie parce que ci première heure meurtre bi vraiment ba ñu ñi xamul woon exactement donc ñi ngi doon wax peut-être nga xam ne dañ koo teg bët wala jalousie bi tax ñu ko donc ma doon laaj Papa Ndiaye yow nga xam da nekk ci secteur est-ce que est-ce que est-ce que métier bi toll na foofu c'est-à-dire est ñi bëgg siiw bëgg dara daral na leen ñu fàggaagal ñi nga xam ne ñu ngi ci biir ñu ngi ci biir euh, métier bi bon gis nga man je vois que ni àdduna. bi may ñëw fii damaa xol sama simis bi gën a set ma soo ñoom. dëgg la ba rafet ñëw toog ak yéen. gis nga nit boo amul sax ak sutura kenn du ko wutal. nit kiy jaay ngooñ sax wala kiy yenu marché. Mm. am na toneem bu bàyyi marché bu yenoo ba ngoon mu sol yéreem ñu set dugg ci oto yi dem ba ci kër soxnaam ñu tegal ko ndox tegal ko reeram te waa koñ bi duñ ko xamal dara. Mm-hmm. gis nga dund bi sax ak sutura da cee bokk. te ñun artistes yi li ci ëpp dañuy doxee noonu. mooy da nga bëgg a génn parce que fan yii moom tamit yàlla na ko yàlla taxaw génn ko muy Sidi Diop. ma tey Sidi mi ngi doon góorgóorlu di rêvé jënd benn oto. mais léegi oto boobu bi mu ñëwee est-ce que jig na ko. yàlla ko yàlla génn fi mu ne. iñaañan iñaañan iñaañante bi ci biir secteur bi. waaw moom laa la mm-hmm. foofu laay waxee ak yow moo tax ma la. Mm-hmm. il faut pas nit ñi di soxorante. ndax papaay kenn mayewul bu papaay kenn day may day xool doomam yi ko neex bu may ba pare doo ko may keneen mm-hmm. yàlla mooy maye mm-hmm. yàlla fekk na ku jàng ba am diplôme yëpp mu a ko dangay xaar mm-hmm. toogal mu toog mu ne ko dangay topp ci ku amul diplôme moo lay fay kooku mu nekk ko mu naqari ko mais ñaata nit ñu am diplôme ñuy xëyal ñu jàngul exemple yooyu dañ ko war a jàng suñu borom dund bi Pape il faut ñu comprendre li ñu fi indi ba pare Papa Ndiaye